asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaam ci ci li nga xam ne mooy bopp classement wu English Premier League bi gannaaw ndam li mu am tey jële ci kanam Luton Town bi mu ko dóoree ñaari bal ci dara ci match boo xam ne ki nga xam ne mooy Martin Odegaard moo marqué benn but pour ñi waa Arsenal ba ca topp nag benn but contre son la boo xam ne ñoom waa Luton kon ñoo ko marqué seen bopp léegi nag ñu gis ne muy benn bit boo xamante ne waa Luton Town ñoo ko dal di dugal seen bopp jamono bi Arsenal comme ni ma leen ko waxee yëg ci li nga xam ne mooy bopp classement bi wuutu fa Liverpool bi nga xam ne mooy jiite woon yëf yi ba tey jiitam mu am beneen match boo xamante ni amoon na ci championnat ba ba léegi muy ñëri waa Manchester City bi nga xam ne tey ji dañoo joué seen diggante Aston Villa waaye nag ñu gis tey dañoo am ndam lu yaatu di toll ci ñeent bal ci benn ci match boobu la nag ki nga xam ne mooy Phil Foden mooy ci gën a gone gi ab hat la amal tey jile ñetti bal la dal di dugal 46e wala 45e minute ak li nga xam ne mooy 62e minute ak 69e minute moom Phil Foden moo dal di marqué li nga xam ne mooy ñetteelu hat-trick am ci li nga xamante ni voilà mooy ci carrière am voilà ñetti yoon dal dina koy amal ak hat-trick ñu xoolee jamono bi mu ngi am lu toll ci ñaar fukki at ak ñett mu nekk son 82e bit maanaam juróom-ñett fukki bal ak ñaar dal dina koy dugal ci li nga xam ne mooy carrière am bu ñu xoolee nag saison ren bi am na lu toll ci ñaar fukki bal ak benn yoo xam daal na koy dugal moom kii di Phil Foden ci lii di all competition voilà mu nekk nag lu am solo benn bit ba ci des ki nga xam ne mooy Rodri moo ko marqué moom moo njëkk a dugal sax ci 11 minutes ñii di waa Aston Villa nag Durant moo marqué benn bit bi nga xam ne ñoom daal dinañu koy am voilà kon jamono bi Man City donte ne am na ndam lu ndam li neex neex dafay wéy di topp ci ginnaaw ki nga xamante ne mooy Arsenal ki nga xamante mooy sélection nationale di Aliou moom daal dina yëkkati kàddu tey jilee gannaaw bi nga xamante kat dañ ko doon sargal foofu la ci France maanaam dañ ko invité woon bokk voilà ci match boo xamante ni doon dox diggante Paris saint ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Stade Rennais moom nag nee nañu dafa dal di wax ci micro RMC di xam la ne day Sénégal mën na gagné li nga xamante mooy coupe du monde ndax génération bu bees bi nga xam ne ñu ngi dugg ndànk ndànk ci daal bu xoolee yëf mu ngi war a tàmbali nee ci li nga xam ne mooy éliminatoire bi weesu foofu la ca Côte d'Ivoire loolu nag mooy li nga xam ne mooy li ñuy njëkk jëm dégg maam jëli ko indiwaat ko fii ci réew mi voilà su ko defee la cay topp sax cay topp ndax jàpp ne daal génération bu yees bi nga xamante ne jamono bi voilà ñu ngi koy am mën na may Sénégal mu daal di gagné li nga xamante ne mooy coupe du monde Barcelone jamono bi li nga xam ni wàcc na leen mooy ñetti joueurs yi nga xamante ne jamono bi jàppoon nañu ne dina leen teg ñaari match ci li nga xamante ni voilà mooy li ñu jot a def muy kii di Lewandowski ba ci ki nga xam ne mooy Cancelo ba ci sax Íñigo Martínez jamono bi kay di xibaar xam nañ ne ku nekk ci ñoom benn teg ni kon dafa gis ne ñoom match bi war a am seen diggante Cadiz moom dinañu ko wute waaye Cadiz moom xam ngeen ne du équipe bu mag boo xam ne xëy na war na mën a sonal Barça lool waaye dinañu mën a dégg maam disponible ngir jouer ci li nga xam ne mooy El Clasico bi nga xamante ne war a dox kon seen digganteeg ñii di waa Real Madrid loolu nag la ñu doon ragal ndax dinañu mën a jouer ci Clasico bi am déet bu ñu leen tegoon ñaari match lu baax waaye nag gis nañu ne loolu moom jàppandi na fi mu ne di ciy teew ndax contre Cadiz rek mooy benn match boo xam ne dañu ko daal di wute ba yi Bayer Leverkusen daal dinay dem ci li nga ba fii ñu ko bi ñu na ko tey jile moo ko may mu am lu toll ci 40 di si dem ci li nga xamante mooy final bi loolu nag nekk lu am solo muy wane ne rek ba léegi ñuy waxee ak yéen mën nañuy def loolu ñuy tuddee Red Bull manam gagné li nga xamanteni moy championnat bobu la di Bundesliga gagné li nga xamanteni moy Coupe d'Allemagne gagné tam li nga xamanteni moy Europa League lolé yëpp lu mëna nek la ndax ba fi ñu waxee ak yeen ñu ngi ci li nga xamanteni voilà moy compétition bobu la kon taxaw nañ ci li nga xamanteni ne final ba waxna leen ko bi nek sen 40e match bo xamanteni ne nañ ko bi ñu saison bi ak légui voilà te amuñu ci ben défaite ki nga xamanteni moy Xabi Alonso mo dal di jité ligue bi ñu mel ci kaw lolu tam sen attaquant bi nga xamanteni mom lañu wax Victor Boniface nga xamanteni mom am nigérien la nga xam dafa amone blessure nekkon ci ci forme doon marque bit yu bare bari laataa ñu yegg ci kan bi waaye nag bi ñu ko woowee ngir mu dem ci kan ba rek bi kan bi yegg si mu dal am gaañu gaañu ba taxoon demu ca dellu na kon amal na retouram bu ñu xoolee nag lu toll ci ñetti weer ne nañu voilà koy manqué li nga xamante ne mooy équipe boobu li nga xamante ne mooy Leverkusen ñu bari jàppoon ne kon gannaaw gaañu na rek gars yi dinañu am jafe-jafe waaye mel na ni day ba mu gaañu léegi yàqul dara ci mbir ñu ngi way di gaañe waaye amal na retouram mu nekk loo xam ne nag dafay yokk doole équipe bi voilà kon Boniface dellu si waat nag gannaaw 14 match yoo xamante ne manqué na ko équipe boobu la di Bayer Leverkusen.